Get out! giir waxe Macky Samba yow xam nga maay sa giir bu yooni yo wala sek malam yooni mama ya ba ini tibis wow aji bitu moy sayai wow yo sayai gani ga ina wow layla la ce mu ga adana mama chawlai lu la jal shiri chaw yo yo taxawal taxawal You're my team, I'm a dear, dear. You're my second, I'm a dear, dear. dugg si ak ay nitam mis yaay ñëw dugg ak ay nitam Thank you. sama góor sama xarit. sama jàng li may dajal te amoo fa sama doom boole woo dara wax. ma ne ko yéen a xëy na guddee waaj. ñu aatu. mu aatu. macha allah. miss miss saxawal ba nit ñi. da ngeen di gaaw de. Baba mu jël cër jox leen respecté leen doom jooju lay ñëw moom la ñuy indi si biir teraanga bu muy defal doomam léegi Paris bii Miss yaa ngi gis Ndiaye Paris bii ñu yor en sa yaay yaa ko yaa ngi gis xam nga tey jii kaay ma wax leen ñaar. ay salasul lépp lu mu fi joxe waxtaan la ak sama mbéyum doom ak ko bëggee bi ma ñëwee léegi te ne ma doole ma ne ko ah mu ne ma jëlal sama bagage yëpp nga dem joxal ma ko yaa xuuja yaa ma ne lan nga ne ma doole bàyyi fii mu teg ma ñëw toog ci sa dëkk wala yaay dinaa def nangam ak nangam nga dama loo mën ci baax defal yaa xuuja jóg yaa mën lu baax dana si jàmm ñàkk néew ma wàññil néew ma boppam da nga ne ma loo man ci lu baax def kon yàlla na nga fekkee sa njëriñ ak njaboot yëpp Aïcha nii nga def sama doom ji sala yaa ngi gis waaw kay tourneel ma lii nag doomam la ko jox waaye da koy tax ci loxol maanaam yow mii yaay xew tey jàppante ni ku fi ñëw yow la jàpp ni jaay ansaar pari bii ma yor dama koy teg ci loxol ministre mu joxal na ko suñu doom benn pari jaar maa ngi suuf ku jël sàmm sama rak ñaareelu pari baa ngi nii yaa xuja loo ñu digal ñu def loo tere ñu bàyyi ci def. 24K 24 carats. muy lii Aïcha ba tey bàyyeegul ginnaaw ak jaaroy or ci ajal tuux la jóg ñoom nañu ñaari paril ci sama doom nag du ko jox doomam direct da ci loxol magam magam joxoon ko ko C'est une barque en diamant de 24 pierres. lim ko c'est une barque en diamant de 24 pierres. Yàlla jox ko micro bi mu ci benn yoon loolu. nee na. non maa ngi koy jàngal lii la koy des. allo. allo allo. ah. Non, c'est une barque.

jëlal ma bàgg bi bàgg jamaa moom la jox ba tey ci suñu doom ay waay alsa bi ñaari pari yu demee ak bàgg jamaa bi lii ma yor un million moo topp sama bagage su doom Miss a yaa ngi dégg sala teg naa ci million moo topp ñaari pari yi ak bàgg jamaa bi ah waaw

Yeah, yeah, yeah. Yeah. nga xam ne daf ñu ko teral. jox leen la tey. kon ajaratu may astaxaar yaay téeméeri junni laa la jox lii ma yor muy téeméeri junni muy un million xam nga lu ma ko tuddee alaaji Aliou Ndiaye ca àjjana Aïcha nee na borom bu baax boobu borom bu bari personnalité boobu borom boobu jàngal ay doomam liggéey yar leen fi mu ne war a ca fekkewu lii un million ci bàyyi Serigne Ndiaye ana xibaar téeméeri junni ci ayal bu Xuda Jóob un million ci Aja Xuda Jóob un million cinq cent ci ayal bu Xuda Jóob deux millions xale bu na jóg deux millions cinq cent xale bu na jóg Aïcha trois millions Aïssa Rasoul trois millions cinq cent ci Aïssa Rasoul ci góob quatre millions ci Aïssa Rasoul Diouf ak million bi ma jox Alaaji Aali Njaay ma ci àjjana muy cinq millions teg naa ci jaaro oor yi ñoo ko fóole suñu borom 4 millions ak million ba jox alaaji xaale yaay ma jox àjjana ak jaaro oor yi wala ma ñu suuxool wala ma magam wala ma magam wala ma magam di sa càpp lay jaar doxal ma magam waaw kay dox baa tax ci ni la te xam nga maanaam mu xool 5 millions def na ci Aïcha 5 millions fa laa toll ci Aïcha. Thank you. sama tànk bi yaa ngi koy dëgg rek bilaa yow yaa ngi koy. damaa joxe un million yaa yaa ngi dégg joxe million teg ci ñaari bari ak bari ay sa moo jox doomam teg ko ci loxo Miss ana tax nga yaa sax fukki junni téel ma te topp sama tànk yi ngay dëgg yéen a lakkale ñaar fukki junni fanweeri junni ñeent fi junni juróom fukk juróom benn fukk trois cent cinquante quatre cent mille ngembal ngembal quatre cent cinquante téeméeri junni ci ay sarasul ma yoraat beneen téeméeri junni ci ay sarasul muy un million kenn ma ko ñëw xale social la ak ko mën a def social takk ndigg li un million cinquante un million cent cinquante. di nekk ci ren ba tëri ba de jar na yuuxu de. un million ñaata. un million deux cent. yaa ngi mu wane. dëgg la. un million deux cent cinquante. dégg nga ko de. un million trois cent ci ay sarsul. un million trois cent cinquante. dëgg la. un million quatre cent. muy deux mille euros. bu jël këram noobu doo ko mën a def nii. million cinq ndax yaar laa yor muy a mille un million cinq cent teel a ñëw ma tegaat beneen téeméeri gi ni muy deux millions. deux millions nu mu na ñu bari ko. deux millions. waaw day fu jëm day nu mayu la beneen téeméeri junni muy deux millions cinq cent ci ay sa rasul kenn mën a wax lu mu tudd. mayu la beneen téeméeri junni muy trois millions ay sa rasul moo ko jàppale Miss Ndiaye. moo man kay. ay sarasul. liiru jaan. mais liiru jaan moo man kay. daa man kay. jàpp as bi moo man kay. sa jeeg bi moo man kay. bi ma yor moo fekk si 2 millions 500 yi ma jox yàlla na yàlla sa jaar bi. muy 3 millions. 3 millions francs. dóoral rajo bi mu tàkk yëf yi mu kii di dóor. loolu 4500 euros la. xale bi moo man. xam nga loolu lu mu tudd. ñaar damaa bëgg ma jàkkaarloo ministre yaay bëri. tey lii góor yi ku ñëw fii tey yow na jàppale. kon teraanga bu mu fi génne da koy sa loxo. lu la neex partagé. Oh. xoolul gisul. ñetti millions yi pour yow la. deux euh, ñaari pari bi ak bàggu jamaa bi ak un million bi. doomam la waaye ci sa loxo la koy teg nga teewal ko ci loxo doomam. yaa ngi nekk sokkoor loolu it asamaan waaw amiin yaa rabbi amiin allo. billaay arñaale. bu lépp jeexee dañ jéegul ci asistaan. ñëwal ma rukk loolu wax asistaan nee na yow doo yàlla ko yàlla continué nee na mi ngi sant si la gërëm nee na mi ngi yeesalaat njébbalam ca Assia bi ma yor deux millions la. yaay aawo yaay ndeyi jëkkër kaay toog ñu jox la sa kado niis dama ne ay sa yaay madam tàccu leen nii ay sa yaay madam yaa ñoon lu ba kenn du mel ni yow ay sa nii de Arma Sëbé mi ngi wolof daa gaaw weddi. Aïssa nee na. ndeysaan. képp ku bokk ak Aziz Sall Ndiaye day ak baay. day ak baay. ñu ngi bëgg commencé ci Walimata Taaw. bi nga màggee la xel yi dal. te jabootu jaamul kenn du ko nii. waaye du tee. teg leen seen baaraam yi ñu ñëw. jaaxo jama. jaaxo jama. jaaro jamaa bii jox nañu ko wala mata taaw bi njëkk a dugg njëkk a baax njëkk a mag njëkk a tigi dara dugalal ma président bi da nga jeex da nga koy profité wuli mata jot na jaaro wuli mata jot na jaaro jamaa ñu ñëw ci ndayanta ndayanta am na jaaro jamaa yëngal yaa ngi yëngal sunu xol bi. jaaro jama ci ndey Anta. yéen a ay sarasul. daa bëgg ay sarasul. léegi léegi bi mu ñëwee. daga boolal. léegi léegi bi mu ñëwee. daga boolal. wax ko lu baax. ndey Anta. jaaro jama ci ay sarasul. ñu ñëw ci Khady Ndiaye. Khady Ndiaye. wax nañu ko jaaro jama. borom Nigéria. Seydou Mbaye Ndiaye. Seydou Mbaye Ndiaye moo koy nangul. ñu ñëw ana Juma. Juma jama noir. madame Sow jama noir. madame Sow jama xam nga jaaru jama. ma xool jama bi. parce que maa ngi tànn du mel ni salaam yi ma teg. preuve ma xool jama bi. parce que du wala preuve. ñoo ngi la sa loxo. madame Sow. juma waaw. juma nee nañu. yaa ngi maam jaaru xale dëkk bu baax. dëkk am na. ana bu sa baax. ana bu sa baax. soxna jaaru yi war naa tax jigéen ñi muy sëy. Come on! Aziz rasul rasul tur bi nu jël man découragé naa ko taawu ngeen lii Aziz rasul rasul Aïssa Aziz rasul rasul Aïssa Aziz waa rasul rasul bésam bii yàlla nañu taxaw ci ngénte ca bu boobaa yàlla ñëpp fekk doom nag yoo xam ne dafa bëgg Aïcha tolloog moom génération te mënoon koo ñaawal mbaa mu yàpp ko waaye xam na ne fa tubaarikàlla macha allah moom yaayam la mu jox ko cër yaay yàlla na sut nag yaayam jaw fàttali sa barke ba ñu jëm ci suñu doom Aïcha ne doom yooyu mu juróom miis wutalewu ko ca wutale ko ak jumu jur moom ak jumu jur mu jël cër nag jox leen mu jël cër jox leen respecté leen lool respecté leen doom jooju lay ñëw doom jooju lay ñëw jëmale si miis moom la ñuy dimbali si miis teraanga ju muy defal doomam teraanga bu muy defal doomam la ñëw tabarkaale ci Paris boobu léegi Paris bii miis yaa ngi gis Njaay Paris bii ñu yor an sa yaay yaa ko yaa ngi gis xam nga tey jii kaay ma wax leen ñaar ay sa rasul lépp lu mu fi joxe waxtaan naag sama mbay biir doom ak ko bëggee bi ma ñëwee léegi te ne ma doole ma ne ko ah mu ne ma jëlal sama bagage yëpp nga dem joxal ma ko yaa yaa ma ne lan nga ma doole bàyyi fii mu teg ma ñëw toog ci sa def wala yaay dinaa def ak nangam nga dama loo mën coow baax yaa ngi koy jóg amal lu baax ala si jàmm nag ñëw ma wàññil ñëw ma ko tey ma loo man ci lu baax defal kon yàlla na nga fekkee sa njëriñ ak njaboot yëpp Aïcha nii nga def sama doom ji sama yaa ngi gis waaw kay tournel ma lii nag doomam la ko jox waaye da koy tax ci loxol maanaam yow mi yaay xew tey jàppante ni ku fi ñëw yow la jàpp ni jaay ansaan pari bii ma yor dama koy teg ci loxol ministre yaay mu joxal na ko suñu doom benn pari jaar maa ngi suuf ku jël sàmm sama rak ñaareelu pari baa ngi nii yaa xuja loolu ñu digal def loo ñu tere ñu bàyyi ci def. 24 carats ba tey bàyyeegul ginnaaw bi 5 millions jàllee ak jaaroy or ci ajal tuux la jóg ñoom nañu ñaari paril ci sama doom nag du ko jox doomam direct da ci loxol magam magam joxoon ko C'est une base en diamant de 24 pierres. C'est une base en diamant de 24 pierres. Allo allo allo Non, c'est une bague. De diamant. C'est une maman. Asso. C'est une bague. Asso. lii la joxe. waaw. nga ne ni mu tudd. c'est une bague. c'est une bague. un diamant. un diamant. de 24 pierres. 24 pierres. bague diamant. jëlal lii. ma ne lii ñu joxe. bague diamant. pour suñu doom. doomi Aïcha Rasul ma bàgg bi bàgg jamaa moom la jox ba tey ci sunu doom ay waay micro tan tan tendance bi nga tax fee tuuti million la na bi ñaari bal yu demee ak bàgg jamaa bi lii ma yor un million moo topp sama bagage su doom Miss Ndiaye yaa ngi dégg sala teg naa ci million moo topp ñaari bal yi ak bàgg jamaa bi ah pari yi ñu joxe étui moo nekk nii pari yi ñu joxe étui yaa ngi nii. bésam bii yàlla nañu taxaw ci génte ca bu boobaa yàlla ñëpp fekk doom nag doo xam ne dafa bëgg Aïcha tolloog moom génération te mënoon koo ñaaral mbaam yàpp ko waaye xam nga ne fa tubaarikàlla macha allah moom yaayam la mu jox ko ci wilaay yàlla na suuf nag yaayam jaw fàttali sa barke ba ñu jëm ci suñu doom ay sene doom jooju mu juróom miis ca wutali ko ak ju mu jur mu jël cër jox leen respecté leen doom jooju lay ñëw moom la ñuy dimbali si biir teraanga bu muy ñëw doomam léegi pari bi miis yaa ngi gis njaay parel bii ñu yor ana yaay yaa ko yaa ngi gis xam nga tey jii kaay ma wax leen ñaar ay sa rasul lépp lu mu fi joxe waxtaan laaj na may jël doom ak ko bëgg li ma ñëwee léegi ne ma doole ma ne ko ah mu ne ma jëlal sama bagage yëpp nga ma ko yaa ko yaa ma ne lan dañ ma doon bàyyi fii mu teg ma ñëw toog ci sa wet wala yaay dinaa def nangam ak nangam nga dama loo mën coo baax defal yaa ko nga jóg yaa ma lu baax dana si dem ñàkk néew ma wàññil néew ma bote nga ne ma loo mën ci lu baax defal kon yàlla na nga fekke sa njëriñal njaboot yëpp Aïcha nii nga def sama doom ji ça va yaa ngi gis. waaw kay tournel ma. lii nag doomam la ko jox waaye da koy tax ci loxol maanaam. yow mii yaay xew tey jàppante ni ku fi ñëw yow la jàpp. ni jaay ansaan. pari bii ma yor dama koy teg ci loxol ministre yaay mu joxal na ko doom. benn pariw jaaramaan di suuf waaw. ku jël sàmm sama yaa ko jël loolu ñu bindal ñu def loolu ñu tere ñu may ci def. wuy lii Aïcha ba ak jaaroy or ci ajal tuxu la ñoom nañu ñaari paril ci sama doom mais nag du ko jox doomam direct da koy teg ci loxol magam magam joxoon ko ko doomam. C'est une base en diamant de 24 une base en diamant de 24 carats. yàlla jox ko micro bi mu ci benn carats. nee na. non non non jaarale nii la koy def. barki dem la nga xaar. allo. aywa jamati na allo allo. ah. non c'est une base. de diamant. c'est une maman. asso. c'est une base de diamant. asso. li la joxe. waaw. nga ne ñu ma tudd c'est une bague en diamant vingt quatre paires bague diamant jëlal lii ma ne lii ñu joxe bague diamant pour suñu doom doomi Aïcha Rasoul yaa ko yaa ngi gis jëlal ma bague bi bague diamant moom la ñu jox ba tey ci suñu doom ay waay may kii yu demee ak banque jamaa lii ma un million moo topp sama bagage su doom Miss Ndiaye yaa ngi dégg sala naa ci million moo topp ñaari pari yi ak bàgg jamono am pari yi ah. ñu joxe étui moo nekk nii pari yi ñu joxe étui yaa ngi nii déglu yéen loolu mooy wéb la. Yang hujah Abubakar Abubakar Abubakar yaa téeméeri junni laa lay jox lii ma yor muy téeméeri junni muy un million xam nga lu ma ko tuddee Alaaji Aliou Ndiaye ba ca àjjana. Aliou nee na borom bu baax boobu borom bu bari personnalité boobu borom boobu jàngal ay doomam liggéey yar leen fi mu leen war a yaree ca fekk wu lii dinañ ko ràcceeku ci kaamil un million. Ismaïl Sy Ndiaye ëllëg yaa téeméeri junni xajal bu xuda jóob un million xajaa xuda jóob un million cinq cent xajal bu xuda jóob deux millions xajal bu xuda jóob deux millions cinq cent Caali Tuxna Diop Taïcha trois millions ci Aïssa Rasoul trois millions cinq cent ci Aïssa Rasoul ci Gorom quatre millions ci Adja Xuta Diop ak million bi ma jox Alaaji Aali Njaay ma ci àjjana muy cinq millions teg naa ci jaaro oo yi ñoo ko fóole suñu borom 4 millions ak million ba ca alaaji aale njaay ma ca àjjana ak jaaro oo yi wanal ma mi suuxool wanal ma magam wanal ma magam wanal ma magam di sa tànk lay jaar doxal ma magam waaw kay dox waa tax ci soxna Maga mu xool cinq millions sama tànk bi yaa ngi koy dëgg rek bilaa lii ma ah. damaa joxe un million ñaar yaa ngi dégg joxe million ah. teg ci ñaari bari ak bari jamaa ay sa jox doomam teg ko ci loxo bi si jaay ana tax nga yaa sax fukki junni téel ma andi te topp sama tànk yi ngay dëgg yéen lakkale ñaar fukki junni fanweeri junni ñeent fukki junni juróom fukk juróom benn fukk trois cent cinquante quatre cent mille ngembal ngembal quatre cent cinquante téeméeri junni ci ay sarasul ma yoraat beneen téeméeri junni ci ay sarasul muy un million kenn ma ko ñëw. xale social la ak ko mën a def social day takk un million cinquante. un million cent. un million cent cinquante. un million cent. cinquante. un million trois cent ci un million trois cent cinquante. dafa jëkkëram na bu doo ko mën a def nii. un million cinq cent ndax yaar laa yor muy cent mille un cinq cent jërë mën a ñëw ma tegaat beneen téeméeri gi ni muy deux millions. deux millions nu junni. mayu la beneen téeméeri junni muy deux millions cinq ci ay sarasul kenn mën a wax lu mu dugg. mayu la beneen téeméeri junni muy trois millions ay sarasul moo ko jàppale Miss Ndiaye. moo man kay. ay sarasul. liiru jaan. Eh, liiru jaan moo man kay. daa man kay. jàpp as bi moo man kay. sa jeeg bi moo man kay. téeméeri bi ma yor. moo fekk si 2 millions 500 yi ma jox yàlla na sa jaar bi. muy 3 millions. 3 millions francs. dóoral rajo bi mu tàkk yëf yi mu kii di dóor. xale bi moo man. xale bi moo man. ñaar damaa bëgg ma jàkkaarloog ministre yaay ma ne. ay ku ñëw fii kon teraanga mu fi génne da koy teg ci sa lu la neex partagé. Oh. xoolul yi pour yow euh, ñaari bari bi ak bàggu jamaa bi ak un million bi. doomam la waaye ci sama baba la teg ndaxte ma bokk ci loolu doomam. yal na ngeen sokkoor loolu asamaan waaw amiin yaa rabbi aalamiin allo. billaay argaan le. muy argaan le. ñu ngi taal yàqaloo ko dara merci beaucoup damay génn te tubaab fakkal la yónneen dafa fort te ku ne xam nga ni ante mi nekk may génn. ante bari ne géwél am na jaar ante bari ne géwél. Moussa Moussa Badji. Moussa Touba bëri ci démb Aïcha ba mu wootee ndax sax woote ba nu ñemee bëri ci démb Mati Ndiaye ñëw fóon si ca Mbour Ngaparou man la fa fekk wax nga ne la Aïcha Rasoul ki la sax ci Sénégal kenn la gën a jóge jamono noir sama yaay la dama ko bëgg fa waaye kon ku ne doom yow nga koy fay soo ma bëggee téeméer bëgg naa la ñaar téeméer ndax man doole lii lay gis ànd ak ay sama la jëli rek la balaa ñaanal foo fekk defal foo fekk waxal waxal képp kuy dem ci sa géew bëgg ko la wala bu lay waxaat ay baat yoo xam ne dama koy bëgg a dégg wala baat jaxase jarul nga ñu parce que ñu naan ci jàmbar la ñuy def te nag jamono jàmbar yi bokkam ca boo waxee lu baax def lu baax di ngeen am jëpp nga ca naan la loolu ñàkk kenn te dana yokk sa kàtt kon ñun jëlee ñi ñun jëlee ñi pour ñu toogati nañuy boole pour ñu toogati nañuy wax lu rafet pour ñu toogati nañu fexe ba ñaar ñoom mu defal sa woon a ànd sax parce que sama maam yi lan tax def waaw léegi Daaru Jama ak Moussa Baali Fahma Ndiaye Fahma Ndiaye man du ma yàq non non déedéet dama wax rek sama bopp laay wax waaw man dama def man waaw. jërëjëf maa ngi sama ndaw yi. léegi ñu ñëw ci ñu ñëw ñu ñëw ci Fama Ndiaye. ñu ñëw ci Fama Ndiaye. Fama Ndiaye jox nañu ko bàgg or. Fama Ndiaye. quatre plaques. yàq bokkal baay wax naa ko ñu bokkal baay. pare nañ ca doomu ndey ya ñu ngi ñëw ci ñi bokkal baay ci ñoom la lu jëm ndax c'est la famille baay ak doomi baay ay mbokk lañu mënuñoo jox waa kër Khouta Diop di romb ñi bokkal baay yéen ñëpp nag seen njëriñ bi yéen ñaanal baay yaa ngi jur. lu doon ni alaaji Aliou Ndiaye lu càggane nee na doguma nee na barki démb dañoo dem Màkka Ndeye Ndiaye taaw nee na taaw Ndeye Ndiaye nee na keroog bi ñu demee Màkka Babacar yóbbu leen Màkka nee na bi ñu demee Aziz Ndiaye nee na ay 4-4 la ñu jëlal nee na kenn ku nekk a nga 65. nee na bu ko neexoon ne leen Babacar Ndiaye mi a yóbbu na leen res. nee na Aziz Ndiaye dalal leen ci hôtel bu seer. nee na nday Anta mi toog ak xalilu yàquñu ci dara. nee na euro bi. nee na dégguñu anglais dégguñu français. nee na sabal sol mii. nee na fee lay toog fa lay ndogoo fa lay waxtaanee nee na génne olo yu bari jox leen nee na lépp luy njaag ajal ko xuj a doon yow mi yaay njaag nee na nee na ajal ko xuj a doon yàlla na gudd fan ku ne am yàlla na gudd fan nee na màkk boo koy dem sóoraale sa xaalis. waaw waaw loolu dëgg la waaye da nekk ñu ay ay sëriñ su mu yeggale. nee na moom lii muy wax foog ko ay sarasul ci digg ñi nee na lii muy def di ko wax du yëfa waaye nag ñu nee na nee na su man eggee nee na la njëkk a in ay sa day tiim taabal ji di jooy nee na bu lépp jeexee dañ jébul ci assistant loolu wax xaas ne nee na yow doo jëkkëram bàyyam yow doo jëkkëram baayam la nee na yàlla ko yàlla continué nee na mi ngi lay sant si la gërëm nee na mi ngi yeesalaat njébbalam ca as ya li ma yor deux millions la. niis dama ne Aysa yaay magam tàccu leen nii Aysa yaay magam yaa ñoon lu ba lépp neex kenn du mel ni Aysa nee na képp ku bokk Aziz Ale Ndiaye maa ngi nii de ndeysaan képp ku bokk ak Aziz Sall Ndiaye day ak baay man mi ñu ngi bëgg commencé ci wali mata taaw bi nga màggee la xel yi dal te jabootu jaamul kenn du ko nii waaye du tee teg leen seen baaraam yi ñëw jaaro jama jaaro jama jaaro jama jaaro jama bi jox nañ ko wali mata taaw wali mata taaw bi njëkk a dugg njëkk a baax njëkk a màgg njëkk a tijji laa la. dugalal ma président waaw changé na. lii daal daa jeex na da nga koy profité. waaw waaw. Oulimata Diop na jaaro. Oulimata Diop na jaaro jama. ñu ñëw ci ndeyanta. ndeyanta. am na jaaro jama. yaa ngi leen wax sama xol bi. yëngal yaa ngi yëngal sunu xol bi. jaaro jama ci ndey Anta. su yedd ay saral suul. daa bëgg ay saral suul. léegi léegi bi mu ñëwee. dafa boolal. léegi léegi bi mu ñëwee. dafa boolal. wax ko lu baax. ndey Anta. jaaro jama ci ay saral suul. ñu ñëw ci Xadi Njaay. Xadi Njaay. ñoom ko jaaro jamma borom bi jaliya Seydi Mbaye Ndiaye moo koy nangul ñu ñëw ala juma juma jama noir madame Sow jama noir madame Sow jama noir ma xool ma xool jama bi preuve ma xool jama bi wala preuve. ñoo ngi lay sa loxo. madame Sow. juma waaw mais sa yaay la ko liggéeyal. yaay maam Ndiaye xale dëkk Touba. xale bu sa baay. xale bu sa Touba. soxna Jaara mi wax naa tax jigéen ñi sëy. Bousso. yéen yéen leen mu ne Touba yow sax Dakar leer. yéen Bousso yéen Touba Touba Touba. waa Touba bi nii sama rakk bi jéego. Aïssa Aziz Rasoul Rasoul. rasul rasul eh, ay saafis rasul rasul eh, ay saafis eh, rasul rasul Aziz di nga gudd fa di nga wér da ngaa boole làmbaale mu wér ajal tuxu bi ñoom nee na ba xam ñaan bi yëpp ay sama suul jeexee bala ne digal day safar da koy wax ni ñu dégg ko xam ne moo ko yónni nee na yow doo jëkkëram baayam la nee na moom nu mu mën ci mel rek yow bii yaa nga nee na yàlla ko yàlla ko moom yaayam la mu jox ko cër yaayam yàlla na suuf nag yaayam jaw fàttali sa barke ba ñu jëm ci suñu doom ay jege doom yooyu mu juróom miis ca ak ju mu jur mu jël cër jox leen respecté leen doom jooju lay ñëw moom la ñuy ñibbi si miis teraanga bu muy defal doomam léegi pari bii miis yaa ngi gis njaay pari bii ñu yor yaay yaa ko yaa ngi gis xam nga tey jii pari ma wax leen ñaar ay sa rasul lépp lu mu fi joxe waxtaan naag sama jiir doom ak ko bëggee bi ma ñëwee ma doole ana ko ah mu ne ma jëlal sama bagage yëpp nga ma ko yaa xuuja yaa ma ne lan nga ne ma doon bàyyi fii mu teg ma ñëw toog ci sa wet wala yaay dinaa def nangam ak nangam nga ne ma loo mën ci baax defal yaa ko jóg yaa mën lu baax dana si dem ñàkk néew ma wàññil néew ma ko nga ne ma loo mën ci lu baax defal kon yàlla na nga fekkee sa njëriñ ak njaboot yëpp Aïcha nii nga def sama doom ji ça va yaa ngi gis lii nag doomam la ko jox waaye da koy loxol maanaam yow mii yaay xew tey jàppante ni jaay alsaan pari bii ma yor dama koy teg ci loxol ministre yaay mu joxal na ko suñu doom benn Paris jaar maa ngi gis ku jël sàmm sama rakk baa ngi nii yaa fi jot loolu ñu bindal yeegul ginnaaw bi 5 millions ak jaaroy or ci ajal tuxu la jóg. ñoom nañu ñaari parul ci sama doom mais nag du ko jox doomam direct da koy teg ci loxol magam magam a ko doomam. Une barque une banque en diamant de 24 milliards. Ndiaye jox ko micro bi mu jëm ñu ne loolu. dee na. non man ma koy daal rek lii la may des. Ndiaye laa ko micro bi nekk xam. allo. allo allo. ah. Non, c'est une banque de diamants. C'est une maman. Asso. C'est une banque de diamants. Asso. lii la joxe. waaw. nga ne nu mu tudd. c'est une bague. c'est une bague. un diamant. un diamant. de 24 pierres. 24 pierres bague diamant. jëlal lii. ma ne lii ñu joxe. bague diamant. pour sunu doom. doomi Aïcha Rasoul. yaa ngi yaa ngi gis. jëlal ma bague bi. bague diamant. moom la ñu jox ba tey ci suñu doom ay waay micro tan tan du tan rek léegi tax fee tuuti dañ maa féete ginnaaw moo tax may un million la nga ko teg ci doomam Médoune Médoune Médoune alsa bi ñaari pare yu demee ak bàgg jamaa bi am joxal am ñaar lii ma yor a sec un million moo topp sama bagage su doom Miss Ndiaye yaa ngi dégg sala teg naa ci million moo topp ñaari pari yi ak bàgg jamono am ah. waaw pari yi ñu moo nekk nii pari yi ñu joxe étui yaa ngi nii